que tey réunion tey bi dafa nekk CRD boo xam ne monsieur le gouverneur bi ñu ko ñëwee defal ko situation épidémiologique bi am Touba ak ci région bi moom ci saa si dafa ne foog ñu woote woote CRD bu spécial ndax épidémie bi bi muy laata dugg ci Sénégal moom jotoon na woote CRD boobu épidémie bi duggaguloon mu waxtaan ak nit ñi xamal leen xamal leen mesures yi ñu war a jël pour moytu feebar bi dugg fi mesure yooyu nag efficace nañ sax waaye gis ngeen li fi indi yëf yi maanaam nit ku jóge itali am ko te ba mu koy am bi muy dugg si feebar bi manifesté wul mu dugg dem ba feebar bi manifesté wul ñu diagnostiqué ko gis ne am na ko mu tàmbali am waa këram yu mu wàll. gouverneur nag bi ñu ko ko leeralee mu ne foog ñu woote CRD spécial ndax xeex bi kat dootul xeexu secteur de la santé rek. xeex bi dafa war a nekk multisectoriel maanaam secteur bu ci nekk am na lu ñuy xaar ci yow pour nga mën a ñëw jàppale askan wi jàppale secteur de la santé ngir feebar bi bañ a jéggi dayoo ci kaw loolu nag la woote CRD bi nga xam tey ku nekk gis nga ni saal bi feese secteur yëpp wuy si nañ te li ci gën a am solo sax mooy ñi ŋànk secteur yooyu ci seen bopp ñoo ñëwal seen bopp toog fii jël kàddu bi gouverneur jox leen kàddu déglu leen ñu wax ba pare jël ay engagement lu demee ni secteur éducation ku ci nekk dégg nga inspecteur bi mesure yi mu jël ndax bàyyi na xel lool xale yi nga xam ne dañuy jàng ci école yi te ñu war leen a aar war leen a protéger wax na disposition yi mu jël yëpp ci wàllu lave-mains yi mu teg ci biir euh, école yi ngir xale yi mën a am fu ñuy raxasoo ak ñiy ñëw di dugg si ci école yi wax na tamit sensibilisation bi nga xam ne def na ko ci biir écoles yi jox nañ parole centre des opérations d'urgence mooy kuréel bi nga xam ne ci biir ministère moo ŋànk ànd ci ak waa direction de la prévention ŋànk wàllu xeex bi mu jox leen parole ñoom ñu jël engagement ne dinañ indi hôpital boo xam ne c'est un hôpital boo xam ne dañ koy monter à Touba ci diiru juróomi fan nga xam ci diiru juróomi fan suñ ko monter benn malade dootul jar ngay dem di génn région bi di dem fànn wala ngay dem feneen dinañ mën fixer malaat yëpp Touba di leen toppatoo di leen faj ba ba ñuy wér te su boobaa dinañ indi ay expert ak ay docteur indi ay kuréel yoo xam ne dinañ jàppale ñi nekk Touba ci paj mi kon wax nañ wàllu ndox mi gis nañ ne feebar bi ndox lu am solo la ci li koy aar ndax nit ñi soo leen waxee raxasu leen fokk ndox moomu jàppandi gouverneur jox na kàddu waa hydraulique ñu jël ay engagement pour fexe ba ndox mi fépp foo xam ne dafa am jafe-jafe ci wàllu ndox mi ñu fexe bu yóbbu fa ndox mi li ci gën a euh, am solo nag mooy hôpital bi nga xam ne moom la ñuy wax hôpital Sëñ Mbàkke Madina muy centre de centé bu Daaru Xudóos gouverneur joxe na ay instructions yu ferme pour nu mu gën a gaawee ñu yóbbu fa ndox ndax hôpital la boo xam ne amul ndox boobu ba léegi te épidémie bi kat hôpital mënta warta mën a ñàkk ndox kon loolu rek jaroon na woote CRD te bokk na ci li nga xam ne am na ay solution tey fii ci CRD bi jox nañ kàddu communicateur traditionnel yi nga xam ne ñoom ñu am solo lañ ci yeete ndax ñooy dem ci yi takk yi ak dëj yi ak fépp fu mbooloo nekk ñoom itam jël nañ kàddu wone seen jàppandi goo xam ne jàppandil nañ ko euh, rajo yi nga xam ne ci la ñuy nekk di waxtaan pour que euh, suñ fi jógee ñu mën a wax ci émission yi wax nañ ci wàllu euh, environnement ak wàllu sécurité ndax dañu gis ne am na ci malade yoo xam ne léeg-léeg dañuy euh, dugg ci structure suñ leen defalee prélèvement balaa résultat yee ñëw am ci ñuy bëgg génn dem muy affaire sécurité boo xam ne biñ ci waxee gouverneur jël na ci ay décisions ak ay mesures engage force de sécurité yi ngir ñu jàppale accompagner structure de santé yi mais lépp ñu def ko nag ci sutura ak teggin euh, wax nañ fi aussi ci wàllu euh, communication bi nga xam ne comité bi nga xam ne moo ŋànk wàllu xeex feebar bi ci région bi communication bi mu nekk communication bu leer mu bañ a doon loo xam ne ku nekk day wax gouverneur définir na rôle yi jox communication bi secteur de la santé mu ci ànd ak ñi nga xam ne ñoom la ci war a àndal pour jeexal ñu ngi sant monsieur le gouverneur ci lii nga xam ne woote na ko ndax euh, diligence bii mu def dafa nekk loo xam ne chef de l'État ci boppam moo ko sàkk ci administration suñ ñëwee kilifa gu day ne moom suñ ko waxee ay problème mu am ci diligence bi ñun day dal suñu xel lool ba pare ñu ko ciy sant ndax démb lañ ko leeral li am bu dal di jël matuwaayam yëpp woote tey ñëpp daje fi ngeen gis ni mu demee kon ñu koy sant bu baax di ko wax ne ñu ngi lay jaajëfal ci turu suñu secteur ak ci turu agent yi àndal yëpp lii mu def tal na suñu xel yëpp jërëjëf